asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñee lépp lu nëbbu lambok njëriñ tey nag di altine 29 euh, mai euh, atum 2023 ñu nekk euh, biir Parcelles asseni fas yéene nag wër biir Parcelles Assainies amal leen reportage. bu am solo jëm ci euh, l' affaire Ousmane Sonko aji Sarr mais également l' affaire Ousmane Sonko ak état bu Sénégal mais balaa ñu tàmbalee rek dañuy euh, ziare di ko jox wàccuwaayam ci di Alaaji Thierno Moule Sow moom mi nga xam ni mooy le xalif général di le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal mu yàgg fi lool. di ziar madame Sow laa ren di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ziar Rahman ak Rahim di prince Moulé 1 ak prince Moulé 2 leen ñaanal ñu dem ba sut euh, seen i waajur kon euh, ñi ngi am mbégte tey nag ma ànd la le grand man di Aliou Guèye borom parcelle kon Aliou dañuy dugg biir parcelle rek daal di commencé liggéey bi. man maa ngi tudd euh, Bruno Makhtar Bampoki. tu as merci beaucoup. lan mooy sa xalaat sa impression ci li nga gis fan yi rawatina. dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ñoo gis ne Ousmane Sonko instant bi ñu ngi koy persécuté euh, ñu ngi koy bundu xataal ba démb gis nañ li mu naroon def sax bàyyiwuñ ko mu def ñu dem jëli ko Koungheul indi ko ba këram loolu est-ce que yoon la. man ne li ma gis mooy dossier bi ça fait maintenant deux ans fàtte nañ nit ñi quoi nit ñi xam nga la lañu bëgg ñu dossier bi ñu classé ko sans suite. ñu dem élection que le ah, maire dossier waaw parce que viol dafa amul y de viol parce que le médecin wax na lu leer médecin bi nee na si diirum 48 heures Adji Sarr amu ci rapport ak nama ma je m'excuse de l'expression quoi amu ci rapport ak góor kon loolu médecin yi dañuy juré quoi kon déjà nañ leen jox seen gëdd quoi jox leen warmal leen parce que médecin yi dañuy juré dañuy porter médecin bi Alfousseynou ba mu taxawee devant la dafa taxaw ne. am hmm. waaw moom moo wax loolu. waaw génnaat defaat beneen communiqué ne waxul loolu. waaw mais moom médecin bi moom li mu waxoon au début ñun ñu xam nga rek ñun lu ñu wax lu ñu wax au début ñun si loolu la ñuy sukkandiku quoi. sa dégg-dégg ak ni ngay gisee dossier bi ni muy demee nii. Hmm. da nga jàpp ni viol bi amul. man de loolu laa jàpp viol bi amul. yëfu caaxaan la rek pour jéem a faagaagal adversaire politique bi mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mbir mi du problème mu Ousmane Sonko mbir bi xam nga lan mooy problème bi mooy sénégalais yi dañoo sonn les gens sont fatigués te dañu bëgg changement xam nga changement bu amee rek bu amee bu ñi soxloo changement kenn mënu ci dara Abdoulaye Wade fii lan nekkoon bu gars yi soxloo changement xoolal dafa forcé bu mu forcé barrage barrage gis nga li ko ci fek am na ay mort mais finalement élection bu mu demee élection dañ ko door dañ ko domo duma yu métti mag itam man de je suis contre lui quoi. mais kon bu ñu la déggee da nga bëgg 2024 mu am changement. 2024 dañu bëgg mu am changement Macky dem abal keneen même bu dul Ousmane. bu ko peuple bi euh, falaatee nag. peuple bi duñ ko falaat parce que peuple bi ñu ko dañu wane seen bopp peuple bi ñoom wane nañ seen bopp ni moom mënatuñ ko falaat parce que déjà xam nga ab mbir mi du Ousmane Sonko boo gisee peuple bi di sukkandiku ci Ousmane Sonko parce que moom rek moo fi sës moo tax gars yi di langaamu ci moom mais population bi ci boppam ñoo doyal nguur gi fi nekk parce que gis nañ loo xamante ne mi ngi ci réew mi. lu jéggi dayoo ay scandale chaque jour nga dëgg ay scandale cour des comptes waxatuñu fi ay yeneen ay trafic faux de faux billets kenn waxu ci ay cas de viol kenn waxu gars yi ñoo ci dëgg seen te dafa di loo xamante ne gis nga nguur il faut être il faut être exemplaire parce que bul am bul def affaire farparloo kumba am ndey kumba amul ndey affaire yi dañ ko war a teg si yoon ku ci def lu naka su dul loolu nga bokk parti au pouvoir nga bañ a bokk parti au pouvoir ñu daan la daan wër mais du question yow bokkoo parti au pouvoir rek yow dañ lay daan kii bokk parti au pouvoir mu def lu ko neex. noo gisee mandat bi troisième bi même bu valable sax même bu valable duñ ko fal. yow daal da nañ quoi duñ ko falaat waa man loolu laa jàpp quoi vraiment. projet bi muy incarné nag. waaw Ousmane Sonko waa projet bi baax na. mais moom tegagu fi bilan parce que nee na moom day bañ ñu copier bilan moo tax moom mënu fi indi bilan parce que bilan balaa muy indi bilan day fekk mu des ay trois mois d'élection wala un mois élection nga xam ne moom bu fi indee bilan xam nga ñi ñi mën a ñi ñi mën a topp ci bilan mais pour le moment moom tegagu fi bilan comprendre nga parce que moom day bañ ñu copier li mu bilan bi mu fa bëggee indi ñu copier ci loolu xam nga nga xam ne moom moom du mën a am opportunité yu mu xam te ne moom la war a mën a am xam nga nit tam mënoo indi projet nga teg sa projet nit copier projet di ci dox kon boobaa moom moo ciy bénéficié wu au lieu Ousmane Sonko di ci bénéficié wu keneen moo ciy bénéficié wu moo tax mu moom mënagul indi bilan mais man sa façon euh, de faire ak nu muy doxalee am naa confiance yi moom quoi waaw xaw ma nag mais moom tam même bu fi ñëwee tam bu fi deful naka su dul noonu tam dañ koy wàccee fii Sénégalais xam nga la lañ bëgg ndaw am xëy comprendre nga. parce que Macky lu mu diggoon xale yi. defu ci dara vraiment parce que ñi ñaa ngi sonn comprendre nga. y' de boulot man loolu laay casse quoi man je suis apolitique man je suis pas pour Sonko je suis pas pour Macky xam nga la man dama bëgg Sénégalais ñu yëg seen bopp jeunes yi ñu santir seen bopp comprendre nga parce que askan bi dañu sonn les gens sont fatigués. comprendre nga te chaque jour ñu ngi dëgg ay scandale ay milliards ay milliards xam nga loolu day inciter population bi parce que mënoo di dëgg benn nit yor na ñaata milliards këram xam nga. nit ñi nekk di souffrir di sonn voilà liggéey may ko nit ñi nekk di sonn loolu day inciter population bi. day indi révolte te révolte bu amee xam nga nguur boobu noonu war na mën a xoolaat boppam yéen amuloo man su doon man mag yi il faut sortir par la grande porte non pas sortir par la petite porte waaw man mag yi je contre ma ko mais ñu ko wër mag yi mën na bëgg liggéey Sénégal. mais ñi ko wër entourage bi ñoo baaxul duñ ko wax dëgg et puis itam duñu doxal mbir mi comme ni ñu ko war a doxal ñoom ñoo ko yàqal parce que ñoo ko tilimal parce que scandale yi def ay trafic foot bi ak yeneen ak yeneen xam nga yooyu da koy tilimal quoi magi vraiment bëgg na réew mi bëgg na defar réew mi mais ñi ko wër ñoo ñoo ko jàppalewul léegi bu ñu ko jàppalewul après kon euh, affaire bi yëpp ci moom lañ koy teg parce que c'est lui moom moo leen yilif moom moo leen jiit mooy seen jiit kon mooy maanaam après gars yi dañuy comme moom mooy seen njiit responsabilité bi yëpp ci moom lañ koy teg mais Macky moom bëgg na réew mi bëgg na defar réew mi bëgg na changement mais ñi ko wër entourage moo baaxul ñooñu yëpp da leen waroon baliser bu yàgg mais day xool ay colère ak yooyu yooyu yoo ko yàqal léegi finalement sénégalais yi ils ont débouté léegi na na bàyyi rek keneen ñëw ñu xool kooku tam lan la mën a def parce que tam nguur kenn mënu ci dëkk rien n'est éternel quoi dans la vie. waaw ah, ça va alhamdulilah maa leen nuyu bu baax waa Sénégalais yëpp yéen yëpp duma journalistes yi yëpp di leen nuyu bu baax di leen sant bu baax. mais leen ñu bàyyi la nga présenté waaw man la Ibrahima Diawara nekk euh, mairie Dakar di liggéey nekk fi Parcelles Assainies. alors dañu gis Ousmane Sonko ñu jëlee ko démb Koungheul bàyyiwuñ ko mu yeggale li mu naroon def mooy caravane de la liberté ñu fekk ko fa euh, daal di koy jël indi ko këram. Euh, Ousmane Sonko aji Sarr également coow li bëri na euh, ban jàngat gi ci mën a def d'abord. bon mun naa wax Vélingara bi moom fekk na ma Tamba dëmb laa jóge Tamba dañu ne du dugg biir Tamba. parce que lu leen neex rek la ñuy def du dugg Tamba moomuñu Tamba moomuñu Sénégal mu eh, Ousmane buy def ay kii liberté ñoom ñoo indi problème yu bari bi yëpp deuxième fois aussi bu nekkee ci affaire kii euh, Adji Sarr wallahi nguur bi moo respecté wul sénégalais yi parce que sa kilifa diina yi ñu yore kër gi kër kilifa diina yi nekk fii yëpp ñu ngi déglu bu baax ñoom ñëpp chaque jour bu ñuy yeew viol viol viol viol da jàpp ni viol amul viol amul viol moo amul parce que dañuy nekk di yab sénégalais man loolu laa ko tënk bu dul tey man du ma dugg ci affaire Sonko eh, eh, Adji Sarr bi nii parce que Adji Sarr bi moom ñàkk fayda la loolu amul fen léegi niñ koy bundu xataale nii lan lan lan lan lan la ñu ragal ci Sonko ñoom. dañoo ragal parce que Macky day daanu. léegi su daanoo. bu daanee Sonko day toog Sonko da koy dóor mi 11h. Ah, 11h yow da nga jàpp ni kon 2024 Sonko moo war a daaneel. moo war a daaneel Macky Sall kooku sax kooku ay ku xamul dara sax xam na loolu ñëpp xam ci loolu. xam Sonko moom bu ñëwee premier tour bi 11 11h buy mot bu fekkee Macky daanu na. mais mais ragal koo xam ni gars yi nee nañ du nekk candidat 2024. non fal force la Macky day wax ko neex. si population bi moo ko ëpp doole moom na génne jinne yi sax ñu boole ji police yi def li muy def mais seen population bi ñooy décider Sonko lu muy candidat wala lu muy candidat dëkk bi mooy taal tàng rek Sonko day candidat. léegi lan ngay conseiller Sonko moment bi. moment bi man li ma bëgg ci Sonko la na tey na tey na déglu nit ñi su ma nekkee Sonko waxtu wax bu jotee na génn wax. wax wax wax jarul sax mu ngi wax n'importe quoi parce que Sonko c'est pas n'importe quoi au Sénégal bon na bàyyi yenn wax détails yoo xam ne man su ma ne Sonko du ma wax damay noppi rek gérer li may gérer déjà xale yi population yëpp ñu ngi koy topp fu mu dem ñu ngi koy topp man demb bu buñ koy bunduxatal Tamba eh, ba eh, dëmb maa ngi fa barki demb la ñu Vélingara Diaoubé ay guddoon fu yooyu yëpp fekke na ma fii Tamba dañu ne du dugg biir Tamba bokk nañ ci ay dugg ci ay kër yi di sànni lacrymogène yi di sonal doomu aadama yi. koo xam ne sénégalais koo xamante ne sénégalais mel ni comme carte d'identité bi mu yore du carte d'identité Sénégal la yore xaw ma Gambia la xaw ma lan mais man comme war a Sonko kenn xamul lan alors ñuy tiit réew mi dugg ci tension. lan lan lan ngay lancé appel kilifa kilifa diine yi. kilifa diine yi nañuy jóg wax wax ak Macky Sall nañu na bàyyi jàmbur mu nekkee candidat Macky Sall wax tam jeex na moo ko wax. moo ko wax deux euh, troisième mandat amu fii Sénégal. mais constitution bi il paraît na ko mu présenter. waaw loolu am na loolu moo tax Macky Sall depuis ñu xam ko boo léegi moom toujours ci ci kayit yi la koy tënk lu ko loi bi lay tënk xam nañu Macky Sall. kon maanaam amul droit présenter wu. amul droit moo ko wax wax na ko ci on euh, quatorze régions yëpp fu mu dem wax loolu la doon campagne mais Macky Sall moom toujours mbiram yëpp kayit yi la ko tenk moom toujours day boole ni ñi ak ak yoon ak homme de tenue di boole nit ñi rek barke dem maa ngi déglu waxam yi fii lu mu doon wax n'importe quoi fii Macky Sall day sonal ñu ma frère il faut mu bàyyi ñu dëkk bi dem Sénégal am jàmm kontaan na non loolu day am il mu bàyyi ñu faut mu ñu bàyyi ñu Sénégal dem Macky daal mënu tee Sénégal Sonko mooy avenir xale yi Sonko la mais instant bi mi ngi ah, parce que ñi nga ñi bu ñu bëgg a dugg foofu ñu dugg fal force Ah. maa la ko wax. du yomb de. ma ne. bu mam maa jotee ñu dugg. jërëjëf. waaw merci beaucoup. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay fay. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw kii Ndiab la dëkk HLM Grand Médine ñëpp ko xam fii senegal mbër la. alors euh, gis nañu réew mi fan yi dafa nekk ci tension euh, rawatina ci politique bi lan nga ñu mën a wax ci Ousmane Sonko ak état bu Sénégal. ah Ousmane Sonko de biddiw la bu tàkk te biddiw bu tàkk moom neexu la fay waaw moog lam bu tàkk yam sunu borom moo ko taal waaye nit ñi nga xam ne nag léegi sunu borom yàlla moo ko taal kenn mënu ci dara. mais amul leen tiitaange euh, jeudi euh, nga xam ni ci la juge bi war a prononcé euh, mooy procès mag Adji Sarr ñu ñu tëj ko. ah grand loolu wax dëgg yàlla du ma la fen de juge ñëpp xam nañ liy yoon. yoon boo ko mësaana atte bu njëkk kaamil lañ daan teg nga waat waat sa diggante yàlla léegi loolu lan moo tax ñu dindi ko nit ñi fen mais léegi comme que atte léegi daam ba am ci réewum tubaab yi la nekk foofu moom lañ indi fii Sénégal atte bi jaaragul yoon parce que man munuma d'accord ñuy atte nit ko xam ne nit ki teewul man loolu ma ci munugul ñëw parce que gis nga conditions yi gars yi teg du mën a ñëw parce que doomu aadama pour nga àtte ko da nga koy may liberté parce que ñaari sénégalais yu am problème la ñaari sénégalais bu ñu amee problème da nga leen di taaj àtte yoon loolu mooy yoon mais boo faree fañ fara fañee rek kii buy ñëw ànd ak garde corps kenn ko laal fu ko neex lay jaar yow kee bu ñëwee nga ne non non parce que dafa ànd ak popularité non da ngay sonal sa bopp sonal ko. alors lan mooy sa xalaat ci li nga gis démb ñu dem jëli Ousmane Sonko booru Koungheul indi ko Dakar ne ko du def euh, nemmeeku bi mu doon def di saafonteeg population bi. loolu lan moo ci xalaat. ah mooy yoon dëgg yàlla bu dee dañu bëgg noppal askan bi ñoom ma yi ñoom policiers yi nañ xam ne askan bi ñoo leen fi teg askan bi lañ fi nekkal te ñoom ñun ak ñoom yëpp benn lañ parce que si kër yi la yeewoo comme ñun doon ay citoyen comme ñun yàlla def leen te ni doo nga ñuy séparé ak ñoom yaa ngi dégg li ma la wax Ousmane Sonko doomu réew mi la Macky Sall doomu réew mi la mais na rafet xam nga àdduna cere la dañ koy laaloo. soo ko laaloo ba mu saf rek mu neex a warax Sonko dafa saf ca ci ci Sénégal jamono ji que bi ñëpp bëgg nañ ko neexu la bañ. am nga yaakaar ni dina nekk candidat 2024. ah suñ ko bàyyee. cest à suñ ko mayee jàmmam may ko liberté provisoire am liberté totale sax astafurlah suñ ko mayee liberté am suñu borom mën na koo may parce que nit la kom nit ñi ba pare candidat la comme candidat yi rek mais man sama xalaat ay viol ak yooyu gisuma ko fi de. nga ne daal viol bi ñu koy tuumaal ak Adji Sarr amul. ah sama diggante ak yàlla laay wax fekkeewu ko ñoom ñaar la waaye man gëw boo suuree affaire bi nga dégg affaire bi am nga ci xalaat am nga sama xalaat su ma xoolee ba xool ba ca biir complot la su ma xoolee man ba ci biir li complot la. ngeen nga yaakaar ni ñoo war def complot. parce que complot bi parce que nit ku bu demee bu ñu wutal ko garde corps wutal ko appartement kooku am na ku nekk ci ginnaawam li nekk ci ginnaawam lan la loolay wax ci. comme kan nga boo xoolee xam ne loolu jaru ma la koy wax état bi la boo xoolee di nga xam ne état parce que ay Mamour Diallo yu may dégg ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñoom xam nañ ne. pour empêcher ko mu bañ a nekk non munuñ ko empêcher gis doomu aadama li yàlla wax naan laqad karam naa bani aadama lépp lu mu sàkk doomu aadama moo ko gënal fi bari ci suuf gis nga nit ñi dañoo war a xam ne lépp nañ ko delloo suñu borom xam ne fii alalu àdduna la lépp ay jeex xuli xawaloo kànna mu rat même bu leeree da nga wax dëgg Sonko yàlla moo ko fi teg ndaw ñi bëgg ko mag ñi bëgg ko jamono ji Macky moo ko may doole lii nii yëpp mag Sall moo ko may Macky Sall bu ko bàyyoon mu nekk ci jàmm ma moom mu nekk ci jàmm ma wallaahi lii yëpp du ko am Macky Sall moo may Sonko doole ba pare bu ko fokkati mënta ne. alors sama laaj bu mujj. waaw situation réew mi fi mu toll nii. lan nga xalaat lañ war a def ba réew mi bañ a tàkk nekk ci jàmm. waaw loolu moom kilifa yi ñaan nañ mag ñi ñaan nañu ah nit ñaa ngi yor seen cause yi ñaan ba léegi waaye nag luy tax jàmm am ci réew mi. Macky Sall moo ko war a dox. moom moo war a def la paix wàcc ndax parce que moom moo taxoon ne am na dossier yoo xam ne moo ci teg ku loolu ñëpp dégg nañ ko du moo ko wax. Ah, a ah, du moo ko wax yaa ko dégg de ñëpp ko dégg ci télé bi mais yéen dossier la ñuy wax yooyu laa xamul léegi Sénégal mënoo fi nekk yow yow ne yow citoyen nga amoo sa àq ak yelleef loolu mooy lan. ñun léegi boo xoolee amul léegi mag Sall amul benn wujj maanaam amul wujju su ma soo bëggee dégg-dégg Sonko dong moo fi ne Khalifa Sall dee na neel waaw Karim Wade dee na ne ñëpp dee nañ Sonko moo fi des bu ko jàppee tëj ko moom loolu mooy musiba naaru laay looloo tudd sama soo Sonko yàlla moo ko taal taal bu yàlla taal sànni ca mat jàmm na ñooy soo ko defulee rek di nga saxaar rek bay bay kon suñu mbokku internet yu suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV amoon nañ mbégte tey ci altine bi euh, wàcc ci terrain bi ci parcelle asseni dugg ci gox goxaat yi laaj askan bi lan la ñu xalaat ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mais également Ousmane Sonko ak état bu Sénégal euh, xanaa di ziara di ko jox wàccuwaam ci di. le khalife général di le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di alaaji Thierno Moule Sow euh, di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ziaraat madame Sow la reine di ziaraat euh, prince Moule prince un prince deux muy Rahman ak Rahim mbokk yi saa su rek ci grand événement yu mag yi nii lay xewee sur la TMS TV jërë ngeen jëf di leen jox dig daje ci yeneen i ay reportage ba beneen yoon.